et il aurait fait mal il aurait fait plus mal qu'Ousmane Sonko l'aurait fait. léegi Ousmane Sonko moom ci boppam instant yi nii euh, keroog interview mu def ak euh, France 24 kaddu yi mu jotee yëkkati euh, leer na moom jàpp na ne amul. jamono ji ci wàllum yoon ak yoonal loo xamante ne mun na ko tere mu nekk candidat en 2024 ndax euh, suñu xoolee euh, condamnation peut-être yi ñu teg ci ndodom yëpp amagul situation définitive boo xam ne ñu ne ça y est c'est calé parce que ba mu ngi cour de cassation bii nag daanaka décision ba léegi ñoo ngi koy xaar waaye <laughs> euh, gisaguñu ko donc ñaar yooyu tamit lënt-lënt boobu ndax ndax tey du gën a may Ousmane Sonko aussi force boo xamante ne gëm na ni dina nekk candidat ma loolu soo ci nekkee da ngay xool ni par exemple su fekkee justice bi dafa jël temps qu'il faut

àll ñëw na naa mhm. toog déedéet mhm. damay dem cour d'appel su ma jógee foofu ma dem cassation foofu su ma xam ni am naa fa chance rek dama fay dem pour jéem a kii samay chance d'accord loolu kon li ngay wax ne Ousmane Sonko candidat par force yow gëm nga ko non je par force xam nga tey dafa am yoo xamante ne du waxu du wax candidat par force mhm. mais man gëm naa ni war na mun a nekk candidat d'accord léegi yéen au sein de euh, du parti africain pour la souveraineté ndax yéen a ngi représenté candidat ah su mais ñun suñu président tey su bëggoon suba. Mhm. su bëggoon ne dama bëgg a nekk candidat. ngeen investir ko ñu investir ko parce que gisuma fii tey. ci mhm. landerno politique bi. ki nga xamante ne ëpp na ko euh, maa xama ëpp na ko euh, expérience politique. Mhm. parce que département Guédiawaye département Guédiawaye quoi qu'on puisse dire soo fa nekkee. mais jamono bi Yewwi moo ko téye. mais soo xoolee par exemple ñoom Ahmed Aïdara ñoom ñëpp dañu jaar ci kooku ci politique. waaw xam nga donc. Ahmed Aïdara nekkoon nekk UJTL na UJTL jaar ci kooku donc tey suñu amee dara ci politique yàlla ak ñooñu ak honorable Chérif Diop. ñoo leen jàppale foofu ci euh, département Guédiawaye ba ñu toll tey ñu ñu toll donc mm-hmm. ñooñu aussi war na nañoo mën a taxaw Ahmed Aïdara je pense que su gisoon tey honorable Kalidou ne ko damay nekk candidat par respect dina ñëw ànd ak moom Eh mais a déjà choisi son camp. il a déjà moom on dit moom mooy nekk directeur de campagne bu Malick Gakou. mun na nekk directeur de campagne kii Malick mais kenn xamul. parce que ëllëg mun nañu dem ba retrouver autour d'une grande coalition. Mm-hmm. mais Malick moom teg na coalition maa ngi ko yeewi Sénégal boobu. mais xam nga tey boobu leer na. yéenewu ma ko loolu mun na jàll yàlla na jàll ci parrainage yi mais yéenewu ko ko mais tey par exemple mun naa nekk candidat. ma dem ba ci biir ma am gàllankoor mais su ma demee gàllankoor est-ce que par exemple en deux mille quatorze. dix neuf deux mille dix neuf deux mille dix neuf élection présidentielle est-ce que ñi nekkoon candidat yëpp dañu mujj jàll non. jàll ñu mais mais tamit avec avec quand même quoi qu'on puisse dire dialogue politique bi ñu doon saboté <laughs> mi nga xamante moom la ñu doon saboté la plupart des des des ñi nga xamante ñoom ñoo gënoon radical pour ne pas participer tey quoi qu'on puisse dire dialogue bi am na xëy na ay solutions yoo xamante ne teg na ko ci pour gën a yombal ñëpp ñi nga xamante ne tey. am nañ ambition pour nekk président au moins quand au moins nga am dayoo woo xamante ne di nga am ay parrainage yu la mën a may nga jàll. mais xam nga tey dafa am gis nga tu dafa am dëkk yoo xamante ne tey suñ la accusé dafa am ay crimes yoo xam ne suñ la ci accusé mhm. mais da ngay pare. Mhm. na mhm. du ay grâce wala ay kii moo ci non. donc ñun aussi politique. je pense que bi ñuy def loi yi dafa am lu tax ñu defoon ko. mais dañu dem bi ci biir ñu politiser ko. loolu moo yàq affaire bi. mais je pense que suñu waree mun a bàyyi ma Massamba war nañu war a mën a bàyyi Mademba. mais parrainage bi tamit ndax jàppoon ni euh, c'est un mal nécessaire pour emprunter l'expression du euh, du président euh, Senghor euh, c'est un mal c'est un mal nécessaire. un mal nécessaire dans la mesure où tamit euh, mënuñ kay gars yi ñu wax euh, munuñu bàyyi koo xamante ne euh, dafa nekk bitim réew toog fa di gañ sa morning ba xolam sedd ñoom naan dañoo bëgg a jiite te kon connaissant même pas les réalités yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal xamul waa mbëllaxee ñoom lan lan lan la ñuy dundee xamuñu fàndeen nga ma dëkk ndax am na ndox wala am am na électrification ou pas ndax réalité yooyu aussi tamit tey du tax ba parrainage fi nekk quand même un mal qui est xam nga man su ma nekkee conseil municipal tey yàlla ak euh, yeewi askan kii wallu mhm. ñoo tax ma nekk conseil municipal euh, siège boobu may toogal euh, au niveau de gël Tapée Fass Colobane dama koy toogalee wallu ma mhm. ciy gërëm waa wallu vraiment waa PDS bari ci ay xarit bëri ci ay jeunes frères yoo xamante ne ñu ngi ci politique di ci def lu lu ñu man mhm. am ci ay jigéen yoo xamante aussi c'est des c'est des combattantes mais je pense que man tout le temps dama leen koy wax ma ne leen man euh, vraiment seen candidat bi man comprendre ma ko <laughs> comprendre ma ko vraiment comprendre ma ko man j'aurais préféré par exemple un Ngagne Sène nekk depuis kii par exemple wala Mati Ndiaye nekk foofu ne ma candidat la wala un certain Ousmane Diouf nekk candidat que ko man Karim non mm-hmm. par exemple mu nekk candidat foofu noonu am na ay sœurs yoo xamante ni dañ ko gëm nag di ko xeexal. Mm-hmm. pour mu ñëw ak yooyu. Mm-hmm. mais je pense que dina difficile quand euh, parce que temps bi dafa court. beaucoup temps bi dafa gàtt trop fu mu toll nii. mënoon na ñëw su fekkoon ni dafa ñëw fii y'a deux ans doon na mën a xeex loolu mais pour nga toog fii mais c'est comme le candidat xoolal tey par exemple la mouvance présidentielle ñoom ñu ngi fii saf depuis kat ñu ngi fi depuis 2012 ñu ngi fii di am na ci ñoo xamante ni ils sont ils ont été ministres depuis 2014 2015 ñu ngi ci landerneau bi chaque jour nit ñi di leen gis ci télé bi yor seen xaalis di politique di campagne mais tey moment situation bi ñu toll nii temps bi dafa gàtt pour ñëw te ñoom ñu ngi ci dëkk bi massa ki nga xamante ni nekkul ci dëkk bi. donc donc pour vous Karim <laughs> quand même euh, pour mu am chance nekk euh, président en deux mille vingt quatre chance yi bëri euh, su nekkoon suñ ko doon xayma ci pour cent il est à moins de dix pour cent alors. dina dina difficile. malgré quand même la machine électorale qu'on dit. Euh, de ci quand même ci ci parti démocratique Sénégal quoi qu'on quoi qu'on puisse dire dañ leen nangul ne ñoom même foo dans les coins les plus reculés du Sénégal am nañ fa ay xam nga ñaari parti la. parti yu gën a mag ci Sénégal dañuy ne par exemple ba léegi bi Pastef ñëwee mu nekk troisième courant parce que ñun pratiquement ñett yooyu la ñu mus a am dañu mus a am courant socialiste libéral ak parti ñett yooyu la donc ñett yooyu ñoo fi nekkaat donc soo xoolee par exemple PDS ñëw PDS c'est vrai am nañu ancrage partout dans le kii parce que ils ont eu à diriger ce pays pendant douze ans loolu moom kenn mënu leen ko bañal te am nañ ko fu nekk foo dem di nga gis euh, siège mais est-ce que tey par exemple parce que pendant un temps amoon na bëri na ay responsables yoo xam ni jóge nañ fa dem nañu. donc est-ce que responsable yooyu dem tey par exemple suñu ñëwoon est-ce que dinañu am assez de temps assez d'outils assez de moyens financier pour mun a def loolu en douze mois mais est-ce que ce n'est pas tamit l'heure idéale pour Karim. même su fekkoon day ñëw Sénégal tey euh, jaaye bàkkanam ñu euh, xeexonte kook yoon euh, ba ba ba mu am li mu bëgg comme ni ko Ousmane Sonko di defee jamono ji mu ne actuellement damay dee rek may damay ñibbi Sénégal tey même suñu ma doon contrainte def contrainte par corps damay dee mais foog ma ñibbi Sénégal pour au moins wan sénégalais ak population sénégalais ak militant wu PDS que ne Karim est là pour euh, def li nga xamante ne moom lañ ko wax moom moom moom lañ euh, moom lañ placé euh, ci ci moom. man je pensais que euh, après euh, Coupe d'Afrique bi ñu gagné loolu laa doon xaar ci moom mu ñëw man dama yaakaaroon ni peut su ñëwuloon ci moment boobu ci moment local yi. 2022 yi mu ñëw wane boppam. Mhm. su ñëwee mu ne écoute même suy wàcc aéroport ñu ne ko non doo fi dugg amuloo autorisation d'atterrissage mu delluwaat sénégalais yi ne au moins il a tenté de faire la a essayé. mais euh, bi ma gisul loolu yëpp man après je me posais mille et une questions mais qu'est-ce qui se passe. mais est-ce que Karim sax bëgg na nekk candidat ça c'est parce que man comprendre parce que ba léegi moom il n'a il n'a pas officiellement déclaré sa candidature il a été investi par par par par son parti. mais moom ci moom il n'a pas déclaré que est-ce que. est-ce que Karim bëgg bëggati na. voilà daf ma loolu man daf may def équation carrément pour euh, Karim quoi. Mhm. Mhm. mais ndax bëgg na déjà ndax bëgg na. ah war na bëgg parce que musul ne bëgguma mosul ne bëgg musuma ko dégg man personnellement mu ne bëgg naa mais mosuma ko dégg itam mu ne bëggum ndax loolu ah mais PDS amul candidat en 2019 PDS amul an candidat en 2024 ndax loolu aussi euh, suñ ko naree combiné ak euh, parti Pastef day nekk benn naa wax ni euh, soo leen calculer ñoom ñaar daanaka presque su àggul 40 pour cent daanaka mu ngi ci 35 minimum mu nekk électorat boo xamante ne tey koo ko ciy gàddu ci ñi fi nekk daanaka. Euh, dégg nga son excellence au premier tour. Mm-hmm. amul benn amul benn parti au Sénégal boo xamante ni dafa jël nguur te bokkul ci ñaari élection consécutive présidentielle amul. Mm, doy na waar de. <laughs> amul kon ko loolu doy na waar de même si on peut dire que APR quand deux mille deux mille huit lañ ko lay lañ ko sos wala deux mille neuf. amul PDS. li ñu ko doon gagné yëpp élection bu jot dafay bokk. dafay bokk effectivement. ba exceptionnellement en deux mille dix neuf. bokkul bokkul. PS bokkul en deux mille dix neuf. waaw Macky Macky lañ doon soutenir ñoo ngi ñoo ngi ci biir Benno. dañu dañu soutenir mais bokkuñu. Mhm. amuñu woon candidat. te soo xoolee suñu histoire amul benn benn benn benn benn. coalition amul benn grand parti boo xamante ne da nga tëb élection amul. ay ndax loolu kon <laughs> gars yi suñu digloo seen raisonnement ndax tamit euh, les jeunes ne sont pas en train d' être d' être nga xamante ne jamono ñu ñoo ci lang bi. c' est clair tax sànq bi ma lay wax ma ne la. soo dégloo nag xam naa ni su neexee suñu borom suñu fi yàlla bàyyee daañu fi ñëw après élection. incha allah <laughs> soo xoolee. Mhm. Euh, je pense que d'ici euh, exactement trois semaines. Mhm. lépp lu bari dina leer. ci ngay gis candidat yi carrément nga xamante ni kii candidat bu taxaw la te dina dem pour. Euh, bu taxawal daanaka li ñu cëraloon ci waxtu sax euh, monsieur Sène euh, matal nañ ko waaye yéen soo leen amul candidat yéen waa parti <laughs> africain pour le pour la souveraineté ndax di ngeen xëy na dem jàppale ku ci mel ne Khalifa Sall su nekkee candidat wala Idrissa Seck xalaat ngeen koom. xam nga ñun. sey ci benn coalition maanaam. xam nga tey parti politique pour loolu la. suñu mhm. tax waxtaanee ak euh, parti bu ñu mën ci waxtaanal aussi ñu gis suñu bopp ñu gis ni par exemple ñun euh, waxtaan nañ te juboo nañu ci condition yu bari. mën nañ mhm. la jàppale. d'accord waaw parce que loolu rek mooy euh, njëriñu dëkk bi ñu lépp loo xamante ni par exemple dafay avancer loo Sénégal rek. Mhm. ñu ngi ci. et malheureusement nag li ñu jot jox te comme je l'ai jeex na peut-être vous remercier votre mot la fin pour ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan. ah maa ngi remercier wax dëgg yàlla ñi may déglu yëpp surtout waa diaspora bi waa mm-hmm. France moom mention spéciale parce que <laughs> euh, suba ba léegi <laughs> amel yi waaw ñoo ah, gis amel vraiment dañ may seetaan ma am nag sama benn xarit boo xamante ne moom mm-hmm. euh, ami d'enfance la mm-hmm. Omar dara sa femme Marème vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen euh, remercier ak ñëpp di sant aussi waa kër sëñ Abo Mbàkke mhm. euh, sama xarit sëñ Bas mu sëriñ Coro Mbàkke maa ngi lay gërëm di la sant mhm. di gërëm aussi sama waa kër di waa kër sëñ Abdou sëñ Sidi di gërëm sama xarit yëpp ak waa Pass mhm. ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ma encourage parce que bi may ñëw aussi ñoom waxtaan naa ci ak ñoom diisoo ak ñoom di jël nuyoo bi nag di ko teg ci kaw président mu tasaaral ma ko ci membre yëpp ak mhm. remercier aussi sen waa Sénégal TV. Mhm. nga xamante ni ñoom ñoo ma yombalal lii. Mhm. Euh, ak sama circonscription muy waa commune nu Gueule Tapée Fass Colobane. fàttewu ma nag waa zone de captage ñoom Ameth euh, sama ñoom sœur Koumba Sylla. ñoom ñëpp. merci beaucoup. d' accord euh, accord mu nekkoon euh, mu nekkoon ki nga xamante ni moo di euh, Lamine Sène secretaire général euh, parti euh, africain pour la souveraineté tey moom lañ doon dalal ci suñu émission grand angle doon décortiquer lépp li nga xamante ne wàllum actualité la balaa maa dem nag naa nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi doon seetaan dalee ko ci fii nii ci réew mi sama xarit Ndeye Ami maa ngi lay nuyu moom ca Kër Mbaye Fall daal di nekk waa Mbour itam maa ngi lay nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax may gërëm itam ci mel ni Mamadou Um Amar euh, Soxna Ibnu Sonko Plumrar ak ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñoo ngi doon discuter à travers le euh, chat en direct soppe Télé Sénégal yëpp ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di leen gërëm euh, ci teewlu bi di leen jaajëfal di leen jox daje incha allah mercredi prochain ci seen beneen numéro seen émission Grand Angle jaa ngeen jëf.